baisse euh, des prix euh, des produits de grande consommation comme le riz, l'huile, le pain, la farine. La mesure entre en vigueur ce lundi. Est-elle effective, oui ou pas La réponse. Avant 175 le doon jar 150 lay jar lañ 150. Ousmane Diallo confirme donc que la mesure est bien appliquée dans cette célèbre boulangerie située à Sandaga. Toutefois, à l'absence des patrons des lieux, les employés n'ont pas voulu s'exprimer devant l'objectif de la caméra. En off the record, ils nous révèle avoir reçu des instructions de baisser les prix, baisse confirmée par les acheteurs. Salam

dañuy ànd ci li mu wax rek quoi parce que yaakaar naa ni mën na nekk quoi léegi nag ñun dañuy def effort rek pour jéem gën a jàpp rek mu mu antu quoi parce que li mu wax boo ko xoolee aussi par rapport ak euh, ni prix demee war na mën a nekk quoi waaw na si nit ñi jàpp rek quoi mu mu nekk. Mesure bien entrée en vigueur au marché Tilène, précisément à l'établissement des Touré. Toutefois, ce gérant plaide pour une stabilisation des prix te ñun moom loolu lañ bëgg quoi parce que wàññi bi mën na nekk moom mën na nekk wax dëgg yàlla te prix yi mu joxe moom xanaa ñu amélioré ko rek te bañ a teg commerçant yi pression aussi ñu waxtaan ak ñoom quoi bañ indi yenn kii quoi parce que nit aussi boo waxtaanee ak moom rek mën na def li nga bëgg quoi. Le kilogramme de riz à moins de 410 francs, le litre d'huile à 1000 francs, la baguette à 150 francs. Cette décision du gouvernement du Sénégal arrive donc à point, une bouffée d'oxygène

amna solo si ñun jaboot gi dañ bëgg daal mooy jaaykat yi appliqué wàññi bi waaw ndax dinañu arrangé trop fi mu toll nii affaire yi cher na trop trop trop ñu wàññilee moom dinañu arrangé trop wax dëgg. ah bu fekkee appliqué nañ ko. Le ciment aussi n'est pas en reste. Le sac coûte désormais 3550 francs. Pour le gérant de ce grand dépôt de ciment, les nouveaux prix sont appliqués euh, depuis la matinée de ce lundi. comme dañ ko wàññi moom il faut que trois mille six cent cinquante lañ ko daan jaayee mais tey bi ma xëyee dama ne leen désormais à partir de tey trois mille cinq cent cinquante lay jàpp parce que wàññi nañ ko te wàññi bi aussi moo gën si njaboot gi moo ñun ñëpp moo ñu gënal bu ñu sañoon sax mu mu nekk moyen de trois mille cinq cent cinquante. chose promise chose faite donc. Le contrôle sur le terrain sera effectif et renforcé comme indiqué par le ministre de tutelle. Seringue Diop a aussi révélé qu'un dispositif spécial sera discuté et mis en place en collaboration avec le port autonome de Dakar pour accélérer les déchargements et les dédouanements afin de faciliter les choses au grand bonheur de la population.